ñu ngi fii ci almeeru Jokkuli fii ci Rufisque ci li nga xamante ni moo xew te muy xew xin bu ñaaw boo xamante ni xew na ci Rufisque ñuy wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun benn xale bu ndaw la boo xamante ni jeune la muy Ibrahima Seck boobu ba léegi mu réeroon ay mbokkam tey gis ngeen bi nu gannaaw bi nu gisee li nga xamante ne mooy otoom ak téléphone am fële sa plage Jàmmalaay tey ay mbokkam gis nañ ko tey naka samedi mu nu fekk ko ci anam bu ñaw mu dee boobu ba léegi kenn xamul naka la ñan ñoo ko faat ak naka la deewee ak ci ban anam la deewee nu fekk ka ci anam bu ñaw te Ibrahima sekk ñi ngi fi di ko denc ñi ngi noonu mbokk yi di ko wëji xam naa boo boo euh, képp koo gis nu koy wëji jëloon na werd muy jeune boo xamante ni comme nu nu seere ci moom ay waajuram dañu ko bëggoon ngir melokaanam ni mu meloon waaye muy xale boo xamante ni xale bu teeloon bëgg liggéey la xale bu mënoon li muy def am jom ci li muy def nu fàttale leen ni ki nga xamante ni mooy Talla Meng di borom këru Kati Chimère borom THL moom moo doon frère defe naa ñoo bokkoon di liggéey ñoom ñaar tey mu réeroon ay mbokkam ba bi nu ko gisaatee dañu ko fekk euh, mu wuy ji boroomam kon indi lillahi wa inna ilayhi rajiun mi ngi noonu àdduna mi ngi noonu gis ngeen li nga xamante ni moo xewaat Sénégal muy loo xamante ni kenn ku ne war na ci bàyyi xel kenn ku ne nag war na ci Sénégalais yu bare ñi ngi jéem di wax nanu wax euh, président indil nu peine de mort képp koo xamante ni rey na nu daal di la rey waaye gis ngeen lii nga xamante ne moo xew bu nu demee ba gis ni ah ñan ñoo ko rey wala ñan ñoo def jëfin ju ñaaw ji war nañ leen teg daan bi nga xamante ni moo jaadu ci ñoom lii nag war na ñun ñëpp jóg ci taxaw ndax fi mu toll nii li naan trop c'est ndax bu nu ko bàyyee nii dina gën a continuer saa sune ne ñuy jël nit ñi di leen faat saa sune ñu jël nit ñi di leen di di di leen kidnappé lii dafa mel na dañu kidnappé woon booy bi ndax bi nu njëkkee gis oto bi ak téléphone bi ñoom gisaguñu néew bi ba à la fin fekk néew bi fi nu fekk otoom ak téléphone am fekk nu fa néew bi kon mbokk yi mi ngi noonu dinañ leen amal tamit li ci kanam ay mbokkam ci yi nga xamante ni moo xew bu ci almeeri yi di almeeri jokkul léegi léegi ci Sénégal 7